mbokk yu tedd yi ci jotaay bu barkeel bi nga xam ne ñu ngi ko fasal sunu sëriñ Maulana Cheikh Ahmad Tidiane te loolu moo di nga fasal ko rek maamam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci jotaay bu barkeel boobu laay nuyu ñëpp. di ziyaara ñëpp di leen ndokkeel guddi gi nag sori gi daanaka benn waxtu rek moo des ci fajar waaye lépp lu ñu yàlla may rek dinañ ko def ci waxtaan ci borom guddi gi muy Mawlaana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu dafa am benn xadisul qudsi xam ne xadis boobu alxaafis abu naim indi na ko ci xiliya xiliyatul awliya imaam sahru wardi indi ko ci awaariful maarif xadis boobu dafay wone kan mooy cheikh ahmad tijaani radiallahu anhu ndax melo yi ñu wax ci xadis boobu noonu la melokaanoo suñ boroom dafa wax ci xadisul kursi ida kaana alxaalibu ala abdi al istigaalu bi jacaltu nacimahu wa lazatahu fi dikri فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكري عشقني وعشقته فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه وصرت معالما بين عينيه لا يسهو إذا سهى الناس أولئك كلامهم كلام الأنبياء أولئك الأبطال الأبدال حقا الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذابا ذكرتهم فصرفت ذاك عنهم mu ne bu fekkente ne jaam bi bu fekkente ne xolum jaam bi la ko not mooy soxla man yàlla danaa def ak xéewalam ak bànneexam nekk ci tudduma man yàlla bu fekkente ne def naa xéewalu jaam boobu ak bànneexam nekk ci tudduma jaam bi daf may sopp man yàlla ma sopp ko bu ma jaam bi soppee ma sopp ko ma yëkkati kiiraay bi dox sama diggante ak moom bu boobaa man yàlla damay mel ni benn image bu nekk ci kanamam lépp lum soxla rekk ma daldi ko koy won mu ne nit kooku bu nit ñi juumee moom du juum ndax man yàlla maa koy gàgganti mu ne ñooñu mel noonu seeni wax wax yonentu yi la donte duñu ay yonent mu ne ñooñu ñoo di jàmbaar yi mu ne ñooñu ñooy abdaal yi nga xam ne man yàlla bu ma nan bu ma nammee mbugal ñooñu suuf bu ma leen fàttalikoo rek dinaa soppi mbugal loolu ba dootul wàcc ci ñoom jaam ñooñu mel noonu nag Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mi ñuy bëgg waxtaane kenn la ci ñoom waaye duñu wax ne kenn la ci ñoom rek yem ci waaye jaam ñii yàlla di wax ci xadiisul qudsi yi moom Cheikh Ahmed Tidiane moo di seen imaam Cheikh Ahmed Tidiane nag mu ngi gane àdduna bésu jeudi mu tolloog 14 safar 1150 ci atu gàddaay loolu mu ngi tombeek 21 juin 1737 date boobu ci la Cheikh na Ahmada Tijaani gane àdduna 1730 21 juin 1737 loolu mooy date de naissance bu Mawlana Cheikh Ahmada Tijaani Cheikh Ahmed Tidiane bi mu amee 46 ans damay tëb lu bari bi mu amee 46 ans ci dundam ci la tariqa bi Tidiane feeñ ci loxoom te tariqa Tidiane boobu moo ñu boole ak moom ba ñu naan ñun ay taalibe Tidiane lañ tariqa bi mu ko jot. ci 1196 loolu mu ngi tombeek 1781 booba moom Cheikhu Tijaani mu ngi am ñeent fukki at ak juróom benn ci la ko yonentu yàlla Muhammad fekk ci dëkk bu ñuy wax abi samxoon ca Algérie moom Cheikhu Tijaani fekk fu dem ak fu mu nekk àdduna baa ngi topp ci gannaawam ngir leeru yàlla gi nekk ci moom ku ko gis rek bëgg ko ci moom waaye ku ñëw ci moom rekk mu daldi di lay gàntal ndekete booba mu ngi doon xaar ndigal mu beru di jaamu boroomam du nelaw ci guddi ak bëccëg lu weesu ñaari wax du lekk ci guddi ak bëccëg lu dul benn yoon bu nekkul di julli rekk mu ngay jàng alquran bu nekkul di jàng alquran mu ngi yore kurusam di ci tudd yàlla mu nekk ci xaal boobu nag amoon na ay taalibeem yu ko jege yu ko doon wéttali ku mel ni Sidi Muhammad bunul Arabi Damrawi Taazi ak ay benn benn ci taalibe yu mag yooyu le cheikh na ahmada tijaani nekk ci loolu ba maamam sayyiduna rasulillahi sallallahu alayhi dal di koy feeñu dal di koy jox lii nga xam ne mooy tariqa tijaan bi ko yonentu di jox tariqa bi nag cheikhu tijaan dane ko in kuntu baaban li najaati kulli aasin musrifin ala nafsihi taallaqa bi fa nicma wa illa fa yi fadlin li mu ne ko bu fekkente ne damay nekk buntu mucc ñeen bépp maykatu yàlla bu ànd ak man bu boobaa baax na pour man seexu tiijaan ma génn nekk ab sëriñ waaye bu fekkente ne nag damay nekk rek sëriñ boo xam ne sama njëriñ mooy rek bépp taalibi bu ma àndal boo xam ne def na lu baax dal di texe bu defee lu bon <clears throat> dal di texee di kon man ooma ngëneel waaye dama bëgg a nekk buntu mucc ñeel bépp mooy katu yàlla boo xam ne ànd naa ak man naka la wax loolu yonent yàlla muhammad ne ko yow Cheikh Tidiane def naa la ngay buntu mucc booba nag ca la jóg kenn kaalaw nekk ab sëriñ boo xam ne li ko tax a jóg moo di nekk rahmatan lil ibaad nekk yërmande ñeel jaami yàlla yi Cheikh Tidiane radiallahu anhu bi mu jotee tariqa boobu mu ngi am ñeent fukki at ak juróom-benn loolu mooy limutu turu yàlla bi ñuy wax waliyu waliyun boo ko adadee waaw juróom-benn la laam fanweer la yaa fukk la loolu moo di 46 waliyu boobu nga xam ne ci la jote maqaama xatmiyatu ak katmiya loolu mooy loolu moo di li nga xam ne moom la dëxëñ ci kat mi yëtu bi mu amee li mu wëliyu ci at ci la jot tariqa bi waaye kat mu bi nga xam ne mooy kat mi ya boo xoolee baatu kat mu mu ngi lay jox quatre cent soixante xam nga ne quarante six mooy wëliyu quarante six fois dix mooy quatre cent soixante quatre cent soixante boobu mooy wëliyu fukki yoon loolu moo di kat mu nga gis ne kon lu jëkk muy jot kat mi yetu nekk na waliyu boo xam ne sunu maam xalifatul xaaji Mouhamed Niass doomi maam alxaaji Abdoulaye Niass ba muy tontu ibnu maayaabal jëkkër yi wax na benn baytu mu ne wilaayatu cheikh tijaani lafdali in lam takun fa laysa lillahi wali mu ne wilaayam cheikh ahmed tidiane mi gën ci biir wali yu yàlla bu nekkul rek ñu xam ne yàlla amul wali bu dee rek Cheikh Ahmad Tidiane du yàlla kon ñu xam ne yàlla amul wali Cheikh Tidiane yi moomu nag bi mu amee juróom fukki at mu tolloog atum junni ak ñaari téeméer muy mille deux cent ci gàddaay bi loolu tombeeg 1781 1785 ci la jot maqaama xutbaaniyatul uzma ndax Mawlana Cheikh Omarul Fouti wax na ci rimaaxu mu ne sëriñam Cheikh Mouhamadul Xaali wax na ko te ñu nga ca almadinatu munawara ne ko Maulana Cheikh Ahmed Tidiane nekk na xawsu fanweeri at te xawsu buñ ko waxee mooy koo xam ne wér na ne nekk na xutbu zamaan maqaama xawsu boobu nag bu dee fanweeri at la ci toog te moom mu ngi dund juróom-ñett fukki at di nga xam ne kon bi mu amee juróom fukki at mooy ci la jot maqaama xawsiyatu mu dal nag xaar ba mille ci gàddaay bi mu tombeek le quinze juin loolu mooy guddik dimanche di fukki fan ak ñaar ci weeru muharram di 1214 ci guddi googu ci la Cheikhu Tidiane jot maqaama xatmiyatu maqaama xatmiyatu bokkul ak maqaama katmiyatu waaye ñaari maqaama la yoo xam ne ki ko jagoo kenn la wali yu yàlla yi li ñu xam mooy maqaama xutbaaniyatu wala fardul jaamia waaye nag ci biir maqaama xutbaane yëtu xutbu bu nekk fardul jaamia moo gën a foor xutbu bu dul fardul jaamia xutbu bi nekk al xutbul fardul jaamia moom lañuy ñuy tuddee xawsu xawsu boobu nag am na beneen maqaama ci biir darajay xutbu ñu koy tuddee alxatmu fil xutbaaniyati alxatmu fil boobu waliyu yàlla wu ca yegg rek da am mayu am tariqa bu bees bu bàyyi ko ci xadra yàlla bi ku ànd ak yow ca tariqa boobu am ngërëmal yàlla waaye xatmu fil qurbaaniya ci biir diiru téeméeri at yu nekk benn xutbu zamaan rek moo ciy yegg xutbu yu bari dinañ fi jaar doon ay xutbu te duñ yegg ci alxatmu fil qurbaaniya léegi nag alxatmu fil qurbaaniyati am na beneen maqaama bu nekk ci gannaawam moom la ñu wax xatmul xatmi fa huwa fa wa xatmu xatmin wa katmun xaara an kunhihi uqulul anaami xatmul xatmi nag boobu maqaama waliyu yàlla bi ciy egg makaama bi mu jagoo mooy maqaama bi nga xam ne bi yàlla bindee aadama ba àdduna di tukki maqaama bu benn maqaama dong la te mbooleem wali yu yàlla yi duñu yegg ci maqaama boobu dul benn wali yu benn wali yu boobu mooy Mawlaana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ba yàlla bindee aadama ba kër àdduna di tukki maqaama bi mu am muy alxatmul muhammadi mel na moom rek moo ko am te ña ko jëkk ak ña ko mujj benn wali yu mosu koo am te benn wali yu dootu ko am ba pénjum yàlla loolu nag mu ko am ci weer wii ñu génn di weeru tamxarit ca fukki fan ya ak ñaar tombe woon ak bësub dimanche tombe woon le 15 juin ca guddi googa la jote woon maqaama xatmiya léegi nag bam toogee ci maqaama xatmiya bi ñu ne déetewaay ñu toog ba teg ci fanweeri fan ak juróom benn mu di weer ak juróom benni fan loolu la borom munyatul murid di wax wa baadu shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al azizi al muntaqa maqaamihi almaktuumi an kulli alwara siwa nabii ma waraahu wara maqaamu boobu nag mooy maqaam ak cheikh seydi ahmed tijaani bi mu jot ci guddi tey gi nga xam ne moom lañuy ñuy màggal tey gi seydi ahmed tijaani ci atum junni ak ñaari téeméer ak fukk ñeent di 18 ci weeru safar tombeek bésub altine ci la jote woon maqaama katmiya loolu mu ngi tombe woon ak le 21 juillet 1799 date boobu ci la Maulana Cheikh Seydi Ahmad Tidiane amee woon maqaama katmiya kon loolu nañ ci amaat beneen njàngat ne 18 safar bi mooy weeru jullit waaye bu dee ci weeru tubaab ku bëgg a màggal kat mi itam bu dee programme yi dafa tegaloo man nga koo dàkk ci le 21 juillet ndax ci le 21 juillet lundi le 21 juillet 1799 ci la Cheikh Ahmed Tidiane jote woon. maqaama katmiya muy loo xam ne mën nañ caa roy baay ci 20 avril ci juddug yonent yàlla muhammad ndax bu fekkente ne ci weeru jullit la fukki fan ak ñaar 12 rabiul mooy gàmm waaye bu dee ci weeru tubaab 20 avril mooy gàmm ñi nga xam ne itam safar 1214 moo doon katmiya waaye bu dee ci weeru tubaab mooy 21 juillet 1799 Cheikh Ahmed Tidiane Abul Abbas borom tariqa bi radiyallahu anhu moom mu ngi génn àdduna bésu jeudi 17 shawwal 1230 loolu mu ngi tombeek 21 septembre 1815 noonu la Mawlana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane dund ci kaw suuf Cheikhna Ahmed Tidiane nag radiyallahu anhu dina xat ci man pour ma tënkal leen jaar jaaram ak dundam moonte de mébétoon naa ko lool ma ne comme programme bi bariwul dinaa teel a ñëw toog trois heures de temps rek di leen waxal ci Cheikh Ahmada Tidiane waaye ba rek nii la ko yàlla namme lu ci am rek baax bokk na ci may Cheikh na Ahmada Tidiane yi léegi ci may yi rek laay wax may yoo xam ne taalibeem Seydi Ali Harazim moo ko bind kan mooy Seydi Ali Harazim baay mbay baay mu ngay ka xaawi sabti Harazim ma damraawi alxaatim réñoo jege wa najji misri zal aalim fala laahin wala waani كحاوي سبق أحراد مع دم رمي الحاكم ونجد المشهد العالم فلا لاه ولا والي فمله الشيخ أورادي وأحزابي وإعدادي وسيفي بين أضدادي وهو روحي وريحاني فمدح الشيخ أورادي وأحلامي وإعدادي وسيفي بين أضادي وهو روحي وريحاني كحاوي سبق أحراز مع الدم راوي الحاتم ونجل البشر ذا العالم فلا لاهن ولا واني سيدي علي حرازم góoru yàlla gu mag la waaye taalibeb Cheikh Ahmed Tidiane la moom bi Cheikh Ahmed Tidiane ajee Màkka ba ñibbisi Tilimsaana am quarante ina moom Cheikh booba tariqa Tidiane feeñagul mu jóge nag dëkk boobu ñuy wax Tilimsaana di dem Faas ngir ziyaara ji daal ay wóllëreem yene foofa ba mu jógee tilimsaan la jaar dëkk bu ñuy wax wajda bi mu ñëwee wajda mu fekk fa Seydi Ali yi Cheikh Tidiane dal di koy nuyu bam mu ko nuyoo Seydi Ali yi mu ngi door a gis Cheikh Tidiane Cheikh na ne ko yow yaa tax ma jaar fi mu ne ko ah, naka lay taxe te yow mosoo maa xam mosuma laa xam Cheikh Tidiane ne ko waaw yow yaa ma xamut waaye man xam naa la te yow sax di xam nga ma danga maa fàtte mu ne ko yow Aliou Harazim mos ngaa gént ay at ci gannaaw ay gént yu tegaloo yàlla di la woon cheikhul kaamil bu jàpp ci sa loxo di la yeggale ci yàlla rekk Seydi Ali mel ni ku muur woon ñu muuri ko mu ne ko wax nga dëgg yow sama sang bi man yow laa doon wër yow laa doon xaar cheikh na ahmad tidiane ne ko kon nag daje nga ak man keroog la seydi ali harazim jokk ci cheikh na ahmad tidiane jaayante ak moom ci yàlla nekk na ak moom juróomi at lu jëkk sax tariqa tidiane di feeñ booba cheikh na ahmad tidiane mu ngi yore tariqa bi ñuy wax at tariqatul xalwatiya seydi ali harazim moomu nag gis nga baay radiyallahu bi muy bàkk ñi ànd ak cheikh na ahmad tijaani mu ngi naan ka xaawi sabqi ahrazi moom la njëkk tudd bi mu ne lahu sahbun ka aqmaarin bàyyi mu ne cheikhu tijaan am nay sahaaba yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo mel ni ay weer ci koy zawu fathin wa asraari mu ne saxaabay cheikh ahmad tidiane yi bàyyi nee na am nañu fatxu waaye am nañuy mbóot wa tamkiinin waaye am nañu jàppandal wa anwaarin am nañuy leer fa kullun aynu ayaani kenn ku ne ci ñoom sangub sang yi nga له سحاب كأقمار زوفات وأسرار وتمكين وأنوار فكل عين أعياني فمدح الشيخ أورادي وأحزابي وإعدادي وسيفي بين أضدادي وهو روحي وريحاني له صاب كأخمار ذو وتمكين وأنوار فكل عين أعيان رضي الله عنه baay mu ne Cheikh Tidiane am nay saxaaba yoo xam ne dañoo mel ni ay weer dañoo mel ni ay weer ci kowe saxaaba yooyu am nañu fatxu ami mbóot amuk jàppandal ami leer mu ne kenn ku nekk ci sahaaba yi cheikh tijaani yooyu kooka bàyyi nee na ñoñi maanaa sangub sang yi mu ne nag ku comme ku jëkk ka mooy kan mooy Seydi Ali Harazi Seydi Ali Harazi moomu nag moo dajale dara ci maqaamay cheikh na Ahmad Tidiane te moom lépp lu muy wax ci cheikh rek dafa janoo ak moom te koo dund itam mu dajale benn téere lu jëkk muy liggéey jawahirul maani am na téere bu muy wax risalatul fadli wal imtinaan mu ngay wax foofa ne bokk na ci li yàlla may cheikhana ahmada tijaani an jamaa allahu lahu bayna al qutbaaniyati wal fardaaniya mu ne Cheikh tijaan yàlla booleel na ko ñaari maqaama yoo xam ne bariwut lu muy daje ci genn góor ci góor yàlla muy moom Cheikh dafa téye makaama qutbaaniyatu ba pare téye maqaama fardaaniyatu nekk na al qutbu al xaws waaye nekk na al fardul jaamia mu ne loolu bokk na ci li ko yàlla may ndax maqaama yi dañoo uute ay cër yuñ séddale la wala yu yàlla wu nekk am na lum am xut bu nag moo tiim ñëpp waaye xutbu li muy tiim ñëpp itam yóbbulul dara fardul jaamee yóbbulul dara mafatihul kunuuz bu fekkee dangaa ngaa nekk xutbu te amoo maqaama fardul jaamee ab fardul jaamia bu bokkeek yow jamono yow da doon xut bu waaye doo ko mënal dara cheikhana ahmada tijaani nag mu daldi làmbaale maqaama xutbaaniyatu ak fardaaniyatu loolu yépp moom la dajale bi muy dóor a jóg laata muy yegg ci maqaamaam bu koy bi ñuy màggal maqaama yu góor yàlla yi daan am am na leen mais nim leen amee daawuñ ko amee noonu moom dafa xëy rek boole lépp daal di koy téye radiyallahu anhu bokk na ci li ko yàlla may alshafaatu fi ahli asrihi min wilaadatihi ila mamaatihi kere bam juddoo ba kere bi muy faatu képp ku bokk ak Seexu Tijaan jamono ngay ab Tijaan wala doo Tijaan waaye nekkal ab jullit rekk diir boobu yépp yàlla may na ko képp ku dund ci jamono jooju bu taxawee ci kanamu yàlla ëllëg ñu peese ay jëfam yu baax ak yu bon ñu gis ne kii ku war a yeeyoo safara la walla kii warta texe ci barke dund gi mu doon dund ci kaw suuf Cheikh Tidiane di dund ci kaw suuf rëcc ne ko jàllal jéggal naa loolu bi juddoo ba kere muy faatu ay mayam la bam ne ba ma juddoo ba kere may faatu taalibeem yaa ngi toog Seydi Ali Harazim ne ko dégg nga yokkal nañ la ci yeneen ñaar fukki at gannaaw boo faatoo wa minhu anna rabbal arshi qad shafaa fi kulli man qad kaana fi l asri maa dégg de wa ziida baadahu ishruuna li cheikhina musaxaxan yaqiina kon loolu bokk na itam ci ay jagleem kon nga xam ne dëgg-dëgg cheikh na ahmad tidiane rek moo baax te moo bëri yërmande xoolal di dund ci jamono nga ne yàlla maa ngi lay ñaan bi ma juddoo ba bi ma faatoo diir bi may dund yëpp képp ku ci jaab jullit nga jokk ci man walla jokk woo ci man xam nga ma wala xamoo ma gis nga ma wala gisoo ma maa ngi ñaan yàlla nga rus ma ci moom ba péncum yàlla buñ ko topp dara mu ne yoo loolu yàlla nangul na ko ko maamam yonentu yàlla muhammad seede na ko képp ku bokk moom jamono rekk texe nga bam jeexalee ci loolu warlu googu ko yonentu warlul mu bañ a ci ñooñi jamonoom mu daldi nag daldi ne warlu googu mu ngi ñaan tariqaam bi ba pencum yàlla ku jàpp tariqa bi rek warlu googu ak ràmm moomu nga bokk ci looloo waral Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass di wax ne tariqun biha tuxfa al jaraimu kulluha wa waalijuha fi illiyiina muwallaju طريق بها تعفى الجرائم كلها ووالدها في عليين مولد طريق بها تعفى الجرائم radiyallahu anhu bàyyi nee na tariqa ngi nii muy tariqa tijaan ci barkeb tariqa bi yàlla dana ci jéggale mboolem tooñ-tooñ yeeg bàkkaar yi te képp ku soobu ci tariqa tijaan rekk soobu nga ci àjjana illi yi loolu ba tey ci mbaaxu cheikh tijaani la bokk ak ci mayam yu réy waaye may yi yëpp da ko jël fàggul ko jullit ñi fàggul ko jaami yàlla yi bokkoon na ci li nga xam ne Seydi Ali nettali na ko mu ne Cheikhu Tidiane yàlla may na ko dina yegg ci loxoom ci mattuk maarifatu maarifatu billaahi bu mat jàkkaarloo seede Euh, lii daal lim la bu bëree bëri boo xam ne sax nim ko nim ko waxe moom Seydi Ali Harazim neexuta a nettali ndax daf ne ashru mi'ati elf maanaa mi'atu elf euh, moo di daanaka un million cent mille léegi cent mille nga def ko ba muy fukki yoon léegi loolu nga multiplier ko ci boppam ci ñaata ci fukki lan milti milliards ndax nga multipli ko nga multipli ko ci boppam miatu alfi alfi alfi alfil alfu alf million alfu alf mooy milliard alfu alfi alf nag kooku mooy billiard léegi nag be mille nee na ci ay nit yonentu yàlla muhammad warlul na ko cheikhu tidiane nit ñi ñëpp danañ yegg ci kamaalul maarifa al iyaaniya ashuhudiya xam nga lii kenn xamul lu mu dool nee ñii nag wa qaribun min zalika min an nisa nee na milliards yooyu ci ay doomu aadama ay góor lañu mais itam lu jege loolu ci ay jigéen danañ am cër boobu ci ci ci yàlla te ñu jaare ko ci loxo Cheikh Tidiane mu ne itam wa kadhalika al jinnu mu ne gis nga lim bu noonu ci ay doom aadama am na it lim bu tol noonu ci ay jinne ay jinne yoo xam ne ay taalibe seexu tijaan lañuy doon ba fi ne nii nii suñ jotaay bii ñu toog li fi nekk ci ay taalibe jinne yu taalibe Cheikhu tijaan yu teewe jotaay bi ñoo gën a bari fuuf ñi fi nekk di ay nit te ñu ngi toog ci jotaay bi te duñ fi jóg mukk fi ak tasuñ jotaay bi shérif bi ñëwee di dugg si kenn xamul ñaata taalibe jinne yu Cheikhu Tidiane ñoo ñëw gatandu ko ziyaara ko barkeelu ci moom te boo yëgee toll woon nañ jamono boo xam ne xaal bi yëngu na yëngu boo xam ne danga xam ne tànt bi am na leneen lu ci jamono bu ñu toogee nag gaa yi dañu fay nekk Cheikh Tidiane Chamharouche al jinni taalibeem la woon te Chamharouche gisoon na yonentu yàlla Muhammad dund ba dajeeg Cheikhu Tidiane mu jàpp ci moom bés Cheikh Tidiane wax na taalibeem Seydi Ali Tamas Harazim mi ñuy waxtaane ne ko demal ci Shamharush mooy góoru jinne googu nga fekk ko ci bërëb bu ñu wax taafilaalit nga daldi ko nga ziyaareel ma ko te boo demee ñaan gi ñuy wax sayfiyu nga jox ko ko nga déglu ko ko ci moom ndax moom mun ko dégg ci noppi Seydina Ali ibnu Abi Talib neena bi mu demee ca garab ga mu fekk fu góoru jinne gi di chamharuus mu rafet lool yole melokaanu doomu aadama nee na bi mu toogeeg moom ba yàgg cheikh tidiane euh, seydi ali harazim ne ko cheikh na ahmad tidiane de moo ma yónni ci yow mu ne ko eskey gannaaw maamam yonentu yàlla muhammad mboolem sëti yonentu bi ma xam ñi ma gis ci àdduna gisuma ci kenn ku ko gën a niru maamam yonent bi Shamharus mi ne moom gis na yonent bi bokk ci sahaaba ya dund ba fekk jamonoy Cheikh na Ahmad Tidiane ba mu gisee Ali Harazim lam ko njëkk a seedeel mooy ne ko sa sa sa sëriñ bii sëti yonent yàlla Muhammad yëpp moo ci gën a niru yonent yàlla Muhammad ci wàllu bind loolu ñu daal jëflante lañ jëflante loolu damay joxe misaal rek ci lim ne ay milliards ci ay nit ñu ngi bokk ci tariqa bi waaye niki noonu itam ay milliards ci ay jinne ñu ngi bokk ci tariqa bi te ñoom ñépp yonentu yàlla muhammad mu ngi leen warlul dégg nga yegg ci yàlla yegg gu mat mu ne ñii dañuy yegg ci kamaalul maarifa wal mahabba والمشاهدة واليقين والتوحيد والآداب والعلم والاستقامة لولو شيخنا أحمد تجاني مامم موكو ورلول صلى الله عليه وسلم بهبليا تحققه من لم يكذب بربيا ndax làmmeñ woo wenn wi rekk la قول جميع الماسكين بحبليا تحقق من لا يكذب بربيا وصول جميع الماسكين بحبليا تحقق من لا يكذب بربيا فجوبي فيا في, في المعارف لم ترم فقد قصر الأطاب عن ترك شاوية بفضل لا إله جل جلاله وحب رسول الله طه نبيا xam naa nag gàmm gi mu ngi bëgg a sori te maa ngi gis ñenn di rocceeku te bàyyi gi nii toog te joxagu leen ko addiya nag joxewoon woon nañ haddiyey Cheikh waaye joxe joxe guñu nag haddiyey Baay kon nag ñi doon laaj nañu nañu wuraale kenn di dem ci mbokki taalibe yi Cheikh Abdourahim mii toog di deretti Cheikh Ibrahim Niass lépp luñ teg ci loxoom rek ñu ngi ko teg ci loxoy Cheikh Ibrahim te mu ngi toog ñun moo fi jiitu te mu ngi toog ak ñun ba tey ba tëjal ñu ñaanal ñu door a dem kon nag nañ ko terale loolu lim dese woon ci suñ poos yi nañ ko génne jox ko Cheikh Ibrahim jox génne leen hadiya ji ngeen daal di koy joxe bismillah euh, kii tuddati jëlal Qaasim as jëlal sa mbaxana moomu nga wër dem ci jigéen ñi dem ci ñëpp ñu dajaleel hadiya sëriñ bu ko defee nag daw dawrul anwaar ah? waaw Mhm. waaw. Ah, waaw loolu moom nañ la ko bàyyee bàyyil buñ paree nga leeralal ñu ko ah? buñ paree nga leeral ñu ko ah, incha allah dégg hmm? maalish maalish maalish <laughs> waaw maalish <laughs> dawrul anwaar ba tey mbóot la moo xam ne cheikh tidiane yi moom la ko yonent yàlla muhammad jox ci cuñante nag mbóot moomu mosta feeñ ci kawnu bi yàlla mu ngi ko njëkk feeñal ci loxo mawlaana cheikh seydi ahmada tidiane kon teraanga jooju nga xam ne mbóot moomu nga xam ne mu ngi mel ni ismullahi laazam ci nangu ñaan ak ci fajug aajo ñu di ko wax dawrul anwaar mbóot moomu itam yàlla nga ko jagleeloon Maulana Cheikh Ahmed Tidiane bokk na ci li ko yàlla jox ci ay mbóot lu ñuy wax al asmaul idrisiyati muy ñeen fukki tur ak benn yoo xam ne dañoo mel ni melax guy xotti ci gaaw ak nangu ñaan ak gaaw ak fajug aajo tur yooyu itam bo la ci mbóoti na ahmad tidiane waaye cheikhu tidiane bokk na ci li ko yàlla terale yàlla def na ko mu nekk cheikhu tarbiya wa nazra yuwassilu al murida ila kamaali al maarifati wal mushahadati wal yaqini wal tawxidi wal aadaabi wal ilmi wal istiqaama min awali sulukihi ila gaayatihi fi miqdaari tarfati al ayn moom yàlla mayoon na ko ci seexu tarbiya bi mu nekkoon seexu tarbiya day xool ab taalibe rek mu yeggale ko ci maarifatu billaahi bu mat mu may ko mushahada bu mat may ko yaqin bu mat may ko tawxiid bu mat ànd ak teggin yu ma sëkk ak xam-xam akuk njub li tàmbalee ci ak sóoboom ba kere muy daytalu ca loolu yëpp mu ngi koy am ci xef ak xippi Cheikh Tidiane da koy xool rek bu ko xoolee mu dal di dajal lii lépp kon loolu ci ay jagleem la bokk yoo xam ne Seydil Xaaja Ali Harazim mu ngi koy nettali mu ne itam kooku nga xam ne Cheikhu Tidiane bu koy xool da koy xool rek mu defaru walaw kaana fi gaayatil bu'di walaw kaana kaafiran aw sultaanan jaayiran illa nqalaba aarifan kaamilan wa cheikhan muuqinan fi qadri tarfatil basar donte sax mu ngi woon ci dayog sori yàlla donte sax ab yéefar la woon donte buur bu jeng la woon waaye bu ko cheikhu tijaan xoolee bëtub tëbbam moomu day wëlbati ku nekk aarif bu ma sëkk nekk sëriñ bu am yaqiin ci lu tolloog tarfatul basar moom Cheikhu Tidiane bokk na ci li ko yàlla may an yabqa madaduhu fi muridihi ila qiyaami saa mooy ne am tëbbam day sax ci ay taalibeem ba péncum jamono maanaa ba ba ba péncum yàlla mooy ne moom Cheikhu Tidiane am tëbam du dagg am ndoxam du jeex géejam du fer kalpeem du raag saay soo xamante ne nii taalibe bi laaj ko ba mu doyal ndax li am du jeex li li li li gën a yéeme ci yoonu tijaan mooy ne ki jël tariqa bi tey tey ak ki nga xam ne mu ngi jëloon tariqa bi ba Seexu Tijaan di dund ñoom ñaar ñoo bokk yem kot ñoom ñaar ñëpp Cheikhu Tidiane moo di seen sëriñ Cheikhu Tidiane moo leen may werd Cheikhu Tidiane moo leen di tëbb moo leen di nàndal Baay wax na ci sirul akbar mu ne muqaddam bi bu mayee taalibe bi werd jamono jam ko ko mayee fa saasa la taalibe bi di wëlbatiku doon taalibe bu Cheikhu Tidiane waaye du taalibe ka ko may werd bàyyi ne lii dalil bi mooy muqaddam bi may taalibe bi wirdu wi yal nañ yàlla musal ci li muy bëgg a wax bu demoon ba yàgg mu dog ci tariqa bi moom muqaddam bi bu dee taalibe bi mayoon werd wi moom continué na di werd werd wi di sàmm chartay tariqa bi muqaddamam bi dog gi mu dog yoonam nekku ci moom day continuer nekk taalibe Cheikhu Tidiane muqaddamam ba nag fa mu xam jëm loolu Baye moo ko wax ci sirul akbar tey nit may la werd yàlla natt ko mu toog ba yàgg ne la maa la mayoon werd nga ne ko waaw mu ne man de bokkatuma génn naa ci yoon wi xam nga kooku dog na yàlla nañ ci yàlla musal ba mu defee loola taalibe bi ne ko na la topp yow loolu nga wax na la topp man de maa ngi ànd ak Cheikhu Tidiane maa ngi continuer bu boobaa taalibe bi continuer na muqaddam bi dog na waaw kon muqaddam bi lan la ci kon du ci dara kat lenn rek la ci mooy jamono yi mu raafee ci Cheikhu Tidiane doon ab bunt ci Cheikhu Tidiane mooy bi mu àndeek ak Cheikhu Tidiane rek waaye jamono yoo xam ne àndut ak Cheikhu Tidiane nekkatul ci seexu Tidiane bu boobaa nekkatul dara ci Cheikhu Tidiane kon mbir mi Cheikhu Tidiane wa an yabqa madaduhu fi muridihi ila qiyaami saati loolu bokk na ci li ko yàlla may waaye wa minha an takunu turuquhu fi bani aadama azyada min ashrati alaafi tariqin kullu tariqin li tilmisin min talaamisatihi wa kullu tariqin تتفرع على طرق كثيرة من المعرفة ثم تتفرع كل طريق أيضا على طرق إلى قيام الساعة mu ne bokk na ci li yàlla may Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu ne tariqaam yi tariqaam yi tariqay Cheikhu Tidiane ci doomu aadama dana ëpp fukki junney tariqa Tidiane te tariqa bu ne benn taalibi ci taalibeem yi moo koy moom te itam bépp tariqa bu nekk ci tariqa yooya dana bànqaasuwaat ci ay tariqa yu bari ci tariqay maarifa bu boobaa bànqaas bu ne dana bànqaasuwaat ci ay tariqa yeneen ba péncum yàlla loolu moo waral li nga fi gis ci ay taal yu jàpp ay zaawiya yu mag ay góor yàlla yu mag yu am ci cër ci tariqa tijaan ku nekk te ruqam ak mbooloom ñooña ñu ngi dugg ci maanaam wax jii nga xam ne cheikh na ahmad tijaan wax na ko te loolu da koy dëggal boo xoolee tey la nekk ci cheikh omarul fuuti yu xam nga ne loola day bànqaas bu dëgër la ci tariqa tijaan waaye boo la neex ca maam alaaji abdoulaye ñas da nga xam ne loola bànqaas bu dëgër la ci tariqa tijaan waaye boo xoolee la nekk ci maam Seydil Hadji Malick si radiyallahu anhu da nga xam ne loolu bànqaas bu dëgër la ci tariqa tijaan boo xoolee la nekk ca Cerno Hamee Baaba Talla loolu bànqaas bu dëgër la ci tariqa tijaan la ca Cheikhana Cheikh Amahullah noonu nag demet li ngay gis lépp mu nekk ay banqaas ay mag boroomi cër ci yàlla yore ko loola mu ngi dugg ci wax ji nga xam ne Seydi Ali wax na ko mu ne Cheikh Tidiane moo ko wax ne yonentu yàlla Muhammad maamam moo ko ko wax ba pare warul ko ko te loolu du deñ an na turuquhu fi bani aadama azyada min ashrati alaafi tariqin kullu tariqin li tilmisin min talaamisatihi xanaa loolu leer na kon wane na ne tariqa tijaan day gën a yaatu rekk day gën a law rek day gën a tasaaroo rekk leer yi day gën a baawaan di saawaan waaye du dellu gannaaw mukk benn yoon wa minha an takunu turuquhu fil jinni azyada min ishrina alfi tariqin bu dee jinne yi doom aadama yi ñoom maanaa fukki junni tariqa tijaan ñoom lay pàcc pàcc tariqa bi dana dem ba nekk fukki junniy tariqa waaye bu dee jinne yi dana dem ba nekk ñaar fukki junniy pàcc ci ay tariqa tijaan yoo xam ne ay kuyi jinne yoo xam ne taalibe seexu tijaan lañ ñoom ñooy yore tariqa yooya jiite ca di ca doxal di joxe laazim ak wazifa ak hadra di bëgg cheikhu tijaan lii cheikh tijaan yi moo ko wax mu ne laa tanqatiu abadan xatta yarisa llaahu l arda wa man alayha mu ne tariqaam bi du dog ba mukk ndare yàlla donn suuf si ak ñi ne ci ko suuf te yàlla mooy ngën ji aji donn mu waxaat ne wa min ha anna xaasiyatal wirdi baaqiyatun ila qiyaami saati maadaama yutla wa yuzkaru bokk na ci li yàlla may Cheikhana Ahmada Tijaani mooy jaglay werdam wi jaglay werdam bi moom Cheikhu Tijaan wi aji des la ba yowmal qiyaam jaglay werdu Tijaan wii jagle yi ci nekk képp koo xam ne yaakaar nga ne tariqa Tijaan dana dem ba màggat wala mbootum Cheikhna Ahmad Tijaan mi day dem ba jeex danga réer te dangaa ñàkk sens waaye cheikhu tijaani moom nee na wa minha anna xaasiyatal wirdi baaqiyatun ila qiyaami saati mu ne jagle werdu tijaan wi jagle bi ci ne ngëneel li ci ne leer gi ci ne werdu woowu jagle ba dafay des ba pencum yàlla te déglul cheikh islaam mawlaana alxaaji ibrahim ñas ca ruuxul adab mu ngay naan wa yastaxiilu jamcuhaa bi mu ne ak na mu amee yar ak waaye foofa kat baay wax na fa wax ju dëgër ju xaw a ñagas mu ne kooka kazaba waftara alal ilaahi jal inni aqulu inna zal wirda bajal baay mu ne jomb na te lu jomb mooy lu mënta sax ci am xel mu ngi mel ni nit ku la bëgg gëmloo ne benn moo ëpp ñaar xam nga lim la bëgg a gëmloo doo ko mën a gëm ndax du sax ci sam xel loola mooy lu jomb nee na nag ni muy jombe ci am xel nga saxal ne benn moo ëpp ñaar noonu la jombe ci am xel nit jël wirdu tijaan boole koog beneen wird walla nit di maye werdu tijaan di maye beneen werd walla nit di jël tariqa tijaan ci waajoo xam ne daf naan dama ko lan nuñ koy waxe dama ko supp kànjaam maanaa lépp laa boole tariqa yëpp laay maye tariqa yooyu ku ne yëpp laay maye na nga xam ne tariqa tijaan bokku ca bàyyi nee na ku wax loolu rek kazaba fen na paaya ko wax ci ruhul ëdëm mu ne kazaba ku ko wax rek fen la waftara mu ne te kooku duudal na yàlla ay nar jàllata yàlla nag loolu jomb na ko inni naka man alaaji ibrahima ñas aqulu dama ne inna zal wirda naka werd wii bajal doy na sëkk baaya wax loolu ca ruhul adab wa xayru kulli turqi bil ijmaaci tariquhu aydan bila nisaay ne tariqa yëpp bi ci gën ci dëppoo mooy tariqa Cheikhu Tidiane ci lu amul benn xëccoo wax xayru suyuuxi dëhri bil itlaaqi imaamuna Tidiane zul alaaqi bàyyi mu ne sëriñi àdduna bi yëpp ki ci gën mooy sunu imaam ja Cheikh Ahmada Tidiane ci ak joyal nag bàyyi ñu say wax de xayru suyuuxi dëhri bil itlaaq ki gën ci sëriñi jamono ji ci joyal amul kii amul kaa sëriñ sépp bàyyi na ki ci gën kan la mu imaamuna tijaani mooy sunu njiit la cheikh tidiane zul alaaqi ka nga xam ne mooy borom gànjar yi axul fadaili wal alaaqi dégg nga sëñ Ousmane Ndiaye ca démbi faydu ba mu ngay naan axul fadaili wal alaaqi jumlatiha alwaahibil minani ibni alwaahibil minani حق الفضائل والآلاق جملتها الواهب المند ابن الواحد منني حمامة الباني قد هيت لي شجني بعد الهدوء وميل الجهل للوثن ما شاء الله yàlla na yàlla fay la yiw mu ne dégg nga bàyyi mu ne xayru suyuuxi dëhri ki gën ci sëriñi jamono bil itlaq ci joyal kaay ma wax leen ko kookaay imaamuna tijaani sunu njiit la cheikh ahmada tijaani zul alaaqi kay borom gànjar ya xam nga gànjar yooyu ñooy yen gànjar yi mu lay wax nekkul or ak jamaa yi gaa yi di takk wala luxe yi gaa yi di xëccoo waaye jawharatul kamal ak salaatul fatihi ak mbóot yi ne ci biir tariqa bi yooyu la bàyyi di junj tudde ko al alaak moo di ay gànjar yu foor yoo xam ne ay wurus la ak i jamaa ak i or ak lépp loo xam ne matériel bu foor la bu ligsi la loola bàyyi mu ne Cheikhu Tidiane moo ko yor radiyallahu anhu moo tax gis nga ci eh, eh, famatxu cheikhi mu ngay naan lahu wirdun min alhaadi samaa an kulli awraadin li ashyaaxin wa afraadin fa haza al wirdu agnaani waaw may leen ñu bokk fa madahu cheikh tuuti ñetti ba min al haadi samaa an kulli awraadi li ashyaaxin wa afraadi fa haza al wirdu agnaani fa madahu أشياق وأفراد فهذا الورد أغناني سابقة الله عليه شيخي فدالا ونافي صدقا ما لا إله إلا هو وقراني فغير سابق طال عليه الشيخ إرضالا ونافذك قد مال إلى البل وقصران وتبجيل وأنوار أعيانك حاوي سبق حرازم مع الدم راوي الحاتم ونجل المشر ذلال فلا لاكن ولا واني هو صحب كأقمار سوى الفاتي وأسرار وتمكين وأنوار فكل أين عياني والكحاوي صبغ أراز مع الدم راوي العاتم ونجل المشر ذا العالم فلا لاكن ولا واني نفس جئت في العنبر عبرها مولاها سبق همامي تاج ولي الله همامي عين عين الله تفهم رمز أهل الله فلا تملى بنكراني

ولا مغشار أسر البر ولو أفنيت أزماني وتقدي أنت وتاري بأسرار وأنوار فوزي فوق أقراني فخذا بنت أفكاري وتخضي أنت أوطاري بأسرار وأنوار فأمسي فوق أقراني فخذها بنت أفكاري وتقضي أنت أوطاري بأسرار وأنوار فأمسي فوق أقراني حسبي ببر رؤوف حسبي به وكراني وقال به كلاني ففي الفضاء بأبيداني لا تصمتن الأعادي ولا توازن جنان waaw lahu wirdun min alhaadi Baay mu ne Cheikhu Tidiane lahu ñehal na ko wirdun wertu woo xam ne min alhaadi mu ngi ko jële yonentu yàlla Muhammad werdu woowu nag sama kowe an kulli awraadin werd yëpp werd wee koy werd yëpp li asiyaaxin muy werd woo xam ne ay sëriñ ko am wa afraadin wala ay fardul jaami ko am bàyyi ne nag fa haazal wirdu werd wii nag axnaa nii na ma man alxaaji Ibrahima Niass bàyyi nag lam tànn ba ne doy na ko man de xaw ma ndax doy na leen waaye man moom doy na bàyyi nee na fa haazal wird werd wii agnaani doy na ma man alxaaji ibrahima ñas radiyallahu anhu kon nag wird woowu doy nañu wirdam bi moo ñi defar dëggam gi moo ñu jubal faytoom yi moo ñu xamal kan moo rahmaani cheikh na tijaan wirdam wi moo ñi defar dëggam gi moo ñu jubal faytoom bi moo ñu xamal kan moo di rahmaani wirdoom wi moo ñu defar gi moo ñu jubal faytoom bi moo ñu xamal kan moo di rahmaani yoonam wi moo di li leen ci gaaye ni miik te xam ne waa ji ñu dar moo tabbu ñay daani ku ngoy ci moom di nga raw dunyan wa axiratan doo tàggaloog moom ba ngeen sax dara ridwaani cheikh na tijaan moom day fot xol ba mu set def cay ngeneel ak i leer soril la lëndëm soril gaaya niiraani kii mooy sëriñ bi ma doyloo mooy ku dal sama xel te doy na képp ku am xel cheikhu tijaani kii mooy sëriñ bi ma doyloo mooy ku dal sama xel te doy na képp ku am xel Cheikhu Tijaani Cheikh na Tijaan kii mooy sëriñ bi ma doyloo mooy ku dal suñu xel te doy na képp am xel Cheikhu Tijaani yaay buntu xadra bi yaa yor mbootu xadra bi yow yaa am la ñëpp ut yow Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu waay yaay buntu xadra bi yaa yor mbóoti xadra bi yow yaa am la ñëpp di wut yow Cheikhu mooy sirru sirru bi moo yor caabi péy moom mooy péy mooy mbir moom mooy ndox ma ñuy naan mooy leeru yàlla gi moom mooy gaalu nuux gi ku ñëw mu jàlle la moom mooy noonu seytaane seytaane rek kay noonu Cheikhu Tijaani léegi nag ma jàngal leen benn leetar boo xam ne Cheikhu Tidiane moo ko bind ci loxoom moom la ñuy tëjee waxtaan wi ndax defe naa li des ci waxtu yu bëreetu lettre bi Cheikh moo ko bind bu ngeen demee ci Jawaahirul Maani da ngeen ko fa fekk bu ngeen demee ci aljaamia da ngeen ko fa fekk bu ngeen demee ci risaalatul fadli wal imtinaan di ngeen ko fa fekk waaye bu ngeen demee sax ci kashful xijaab bu Seydi Ahmad Sukayri da ngeen ko fa fekk kon leetar bu wér la bu siiw ne Cheikhu Tidiane moo ko bind leetar bi nag da ko ubbee wax ne déedéet du discours leetar bu gàtt te saf la sëriñ bi lettre bu gàtt la tasaf mu ne micro bi mu wàcce ko mu ne baada alsalaati wassalaami ala rasulillah sal allahu alayhi wa sallam bihamdillahi yasilu alkitaabu ila yadi ahbabina wa asfiyaina fulanin wa fulan wa kaafati alfuqaraai alladina maahu bilagwaat kullu waxidin bi ismihi bi ismihi wa aynihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu min kaatibihi ilaykum al abdulfaqiru ila allah ahmad bni mahammadin tijjaani wa baad nasalu allaha azza wa jalla an yatawallaakum bi inaayatihi wa an yufida alaykum buxuura fadlihi wa wilayatihi wa an yakfiyakum hamma dunya wal axira wa an yunajjiyakum min faqri dunya wa azabi al axira yalihi iclaamukum anna fadla allahi laa xadda lahu wa anna alfadla bi yadi illahi yutiihi man yashaa wallahu dul fadli alcazim wa aqulu lakum inna maqaamana cinda allahi fi alaxirati laa yasiluhu axadun min al awliyaa wala yuqaaribu laa man saxura wala man kabura wa inna jamica al awliyaai min casri saxaabati ila nafq bi suub laysa fihim man yasilu maqaamana wala yuqaaribu li bucdi maraamihi can jamici alcuquul wa sucuubati maslakihi cala akaabiri alfuhuul walam aqul lakum dalika xata samictuhu minhu sala allahu alayhi wa sallama taxqiqan wa laysa li ahadin min alrijali an yudxila kaafata asxaabihi aljanna bi gayri xisaabin wala iqaab walaw camiluu min aldunubi maa camiluu wa balaguu min almacaasi maa balaguu illa ana waxdi wa waraa dalika mima zakara li fihim wa daminahu sallallahu alayhi wa sallama lahum amrun laa yaxillu lii dikruhu wala yucrafu wala yuraa illa fi alaaxira wa maca hada kullihi falasna nastahziu bixurmati saadatina alawliya wala natahaawana bitacdimihim facazzimuu xurmata alawliyaai alaxyaai walamwaat fa inna man cazzama xurmatahum عظم الله حرمته ومن أهانهم أذله الله وغضب عليه فلا تستهينوا بحرمة الأولياء والسلام انتهى واو شيخ أحمد تجاني رضي الله عنه منه maa ngi leen di xamal ne gannaaw nuyoo yeeg yooyu du ci jaar waaye mu ne maa ngi leen di xamal ne ngëneelal yàlla amul dayo ngi leen di xamal ne ngëneelal amul dayo kenn du ne fii la ngëneelal yàlla yëpp maa ngi leen di xamal ne itam ngëneelal yàlla ci loxol yàlla la nekk yàlla dana ko jox ku ko sopp kon ubbi na bunt bu yaatu pour lim bëgg a wax mooy ne ngëneelal yàlla amul dayo kon ku bëgg a tënk ngëneelal yàlla rek yaa ngi bëgg a weddi yàlla beneen bi ci des itam yàlla moo moom ngëneelam te ku ko soob la koy jox mu ne nag maa ngi leen di wax ne inna maqaamana inda allahi fi l naka sunu maqaama ñun cheikhu tidiane fa yàlla ca laaxira laa yasiluhu ahadun min al awliyaai wala yuqaaribu sunu maqaama fa yàlla benn waliyu ci waliyu yàlla yi du ci yegg waxuma la mu ciy jege benn waliyu du jege sama maqaama fa yàlla waxuma laa mu koy jege Cheikhu Tidiane ay wax de min asri saha min laa man saxura wala man kabura mu ne nag waliyu yooyu may wax du waliyu ndaw du waliyu mag ñoom ñëpp ci bokk yam amul benn waliyu yàlla boo xam ne da nga jege sama maqaama man Cheikhu Tidiane waxuma nga cay yeggi moo xam nag ngay waliyu ndaw moo xam ngay waliyu wa inna jamia al min asri sahabati ila nafxi suur laysa fihim man yasilu maqaamana wala yuqaaribu mu ne teyit mboolem waliyu yàlla yi la tàmbalee ca jamonoy sahaaba ya ba kere ñuy wal bufte ga amul ci ñoom benn waliyu boo xam ne dina seen dina jege sama maqaama wala mu du ci yegg ñu ne ko lu ko waral mu ne li bu'di maraamihi an jamii al-uqul ndax sàkku sama maqaama dafa sori xel yépp xam nga nit dara bala nga koy bëgg da koy xam dara bala nga koy ñaan da koy xam dara bala nga koy wut danga koy xam waaye loo xam ne xamoo ko doo ko xalaat lu sa xel dajut doo ko mu ne sama maqaama nag man Seexu tiijaan mboolem waliyu yàlla yi dut man seen xel daju ko ndax xamuñu ko wa suubati maslakihi ala akabiril fuxuul mu ne buñ nattale woon ne sax sama maqaama góor yàlla yi xam nañu num toll xam nañu cër bi ma yàlla may mooy lan waaye nag yoon wañu wara war a sóobu ba jot maqaama ba day jafe ci ñoom képp ku ne yunnu rek dangay ngay delluwaat looloo waral sama maqaama bi man kenn maa ko jagoo ci biir gone yàlla yi walam aqul lakum dalika hatta sami'tuhu minhu sallallahu alayhi wa sallama mu ne te lii nag waxuma leen ko lu dul ne dama koo dégg ci sama làmmiñu maam yonentu yàlla muhammad mu wér ma péng yonentu wax ma lii ma leen wax ma door leen koo wax amut lenn lu ma ci wax muy sama waxi bopp waaye yonentu bi moo wax rek man Cheikh Ahmad Tidiane ma jottali leen ko wa laysa li ahadin min alrijal an yudxila kaafata ashaabihi aljanna bi gayri xisaabin wala iqaab walaw amilu min alzunubi ma amilu wa balagu min almaasi ma balagu illa ana waxdi mu ne mboolem góor yàlla yi amul ci ñoom kenn ku mën a dugal mboolem ay taalibeem àjjana kenn du des taalibeem yépp dana leen boole ànd ñoom ñu jéggi siraat dugg aljanna ci lu amul xisaab ak lu amul mbugal kenn du des ci taalibe yi kudut man Seexu Tijaan nee na kudut moom am toppam dina ci am ñun jël xisaab leen dina ci am ñun jël mbugal leen dina ci am ñun jël sax tàbbal leen safara mu ne waaye moom Seexu Tijaan mbooleemi taalibeem moom rek moo am ci góoru yàlla yi mën a tàbbal mboolem ay taalibeem aljanna ci lu amul xisaab ak ci lu amul mbugal donte def nañu bàkkaar buñ mën a def donte mooy nañu yàlla mooy guñ mën a mooy yàlla comme rek ay taalibeem lañ dana jàpp ci seen loxo ànd ak ñoom ci kanamu maamam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu yegg ci yàlla tabaraka wa taala loolu cheikh na ahmad tijaani moo wax waaye nag wax jooju jar naa firi nit mën na ci dégg ne mbaadu Cheikh Tidiane dafay wóoluloo taalibeem yi mbaadi Cheikh Tidiane day bàyyikuloo taalibeem yi pour ñu def lu leen neex déedéet boo nekkee taalibeem Cheikhu Tidiane yàlla daf lay may tawfiq bépp jullit boo nekkal te du ab tijaan na la naw ci wàllu yàlla boo nekkee taalibe Seexu Tijaan yàlla da dimbale nga tënku ci nekkee taalibe Seexu Tijaan yàlla dalay dimbale nga sàmm sharia boo nekkee taalibe Seexu Tijaan yàlla dalay boole ci ñu sopp yonentu yàlla Muhammad boo nekkee taalibe Seexu Tijaan da bokk ci ñu fonk alquran boo nekkee taalibe Seexu Tijaan mbooleem jëf ju baax juy jegeloo ab jaam yàlla da am sens yàlla tàggat say cër nga tënku ci loolu kon li mu naan la danga nga tàbbi aljanna ci lu dul xisaab ci lu dul mbugal loolu nekkul ay waxi léeb waaye waxi dëgg la ndax dafa jël caabi aljanna teg ko ci sa loxo te caabi aljana mooy def lu baax te bés boo nekkee taalibib tijaan rek da ngay tënku ci def lu baax sori def lu bon mu ngi mel ni ci misaal rek benn waay bu taxawoon ne la man duma tilim xam nga boo amul xel da ne waaw kii lu muy wax ni xanaa du nit ni nit ñëpp xanaa du ñaq xanaa du fënd xanaa du génn ci ngelaw li waaye fekk waaja lam bëgg a wax mooy sama kër am naa salle de bain salle de bain ba lépp loo xam ne dafay nekk ci toilette bu luxe mu nga fa te tayaluma bu ma xëyee dinaa sangu bëccëg ma sangu ngoon ma sangu bala maa tëdd sangu bu ma yeewoo suba teel bala may def dara sangu ba set kii bu taxawee ne du ma tilim wax na dëgg sama kërit am na machine à dara du tilim benn benn sagar sax mouchoir sax du tilim ndax maa ngi am fóotkat boo xam ne ñaari minute yu nekk mu dugal taal machine bi fóot ba set ñu weer waaw ku mel nii bu waxee ne yëreem du tilim jëmmam du tilim ndax waxul dëgg loolu mooy taalibi Cheikhu Tidiane bu waxee ne yàlla du ko bindal bàkkaar bu ñu waxee ne àjjana la jëm firi ne dafa bank ay loxoom ne du jaamu yàlla waaye loola mooy ne moom ànd na sëriñ boo xam ne buum gi mu yeew digganteem ak moom sëriñ bi toujours dakoy koy ñoddi ci lu baax sëriñ bi toujours da koy ñoddi ci njub sëriñ bi toujours Cheikh Ibrahim mu ngi wax naan nahnul ula darasul kitaaba wasal kitaaba wa nahnu wa nahnu ahlul hajji wal arkaani mu ne ñun taalibe Cheikhu Tidiane yi ñooy gaa yi nga xam ne jàng nañu téere téereb yàlla bi muy alquran te laajal alquran boo ne bàyyi nee na nga laaj alquran boo ne ko kan mooy say gaa yi dana naan la waa kër Cheikhu Tidiane mu ne ñun waa kër Cheikhu Tidiane ñun la yàlla yombalal aju aj màkka yoonu màkka boo jëlee wirdu Tidiane di ko werd ni mu ware aj màkka dalay yomb taalibe tijaan pour mu dem màkka am bëri na alaaji mbaa ajaratu boo xam ne yoonu màkkaam du ca dara yëgu ca dara day xëy rek ñu ne ko kaay nga dem ci giir loola barkeb wird wi ngay wer moo la koy jox ndax xayyun qayyum bi ngay def ci wasifa boo ko limee mooy cent soixante-quatorze te xayyun qayyum boobu boo bindoon Makka Madina boo ko adadee moo la jox 174 xayu qayum boobu mbóot ma ca nekk ci biir wasifa wi moo waral taalibeb tijaan yoonu Makka da ko yomb ku ci demutoon ci ñun yal na nga dem waaye ku ci demoon it yal na la yàlla delloowaat ci barkeb Cheikh Ahmada Tidiane te sax daa mel ni rek daal bu ma sañoon sax ne warlu naa ko waaye ñemewu maa warlu waaye daal ñun ñi fi nekk ñëpp yal na yàlla yóbbu màkka daal Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu daal di nag ne ci jeexitali leetar bi wa waraa dalika mimma zakara li fihim wa daminahu lahum amrun laa yaxillu li dikruhu wala yura wala yurafu illa bil axirati mu ne ginnaaw lii ma leen wax ay mbir a ngi foofu yu ma yonent yàlla muhammad tuddal yu ma yonent yàlla muhammad warlul daganul ci man sax ma tudd ko duñ xam mbir moomu duñ ko gis lu dul ci àllaaxira rek mu daal di ciy teg nag wax ju am solo ci tarbiya ak jàngale discipline wa maa hada kullihi falasna nastahziu bi xurmati saadatina al awliya mu ne ànd ak lii yépp nag du ñu yëjji du ñu saboote wor may sunu sang yi nga xam ne yeneeni waliyu la ñu bokkul ci tariqa bi duñ ci saboote kenn wala natahawanu bi taazimihim màggal giñ leen war a màggalit duñ ko sàggane kenn ku ne ci ñoom danañ la wàcce sa wàccuwaay mu teg ci nag ne fa azimu xurmatal awliya na ngeen màggal wormay waliyu yi al ahyaai wal amwaat waliyu yi dund ak yi dee yépp na ngeen leen màggal fa inna man azzama xurmatahum azzama allahu xurmatah mu ne ndax képp ku waliyu yàlla yi dana màggal sa worma wa man ahanahum ku doyadal nag azallahu doyadal wa gadiba alayhi yàlla dana mer ci fala tastahiinu bi xurmati al mu ne bu leen doyadal xormay wëli yu yàlla yi leetar bi cheikh na ahmada tijaani moo ko bindoon ci loxoom yónnee ko taalibeem yi nekkoon dëkk bu ñox wax laxwaat ci Algérie yaakaar naa ne buñ déggee leetar bi danañ ci gis ne wone na ne moom cheikh na ahmad tijaan maqaamaam bi ko yàlla jagleel benn maqaama la benn wali yu mosu cee ba yàlla bindee aadama ba àdduna yu tukki kudul moom te maqaama boobu mooy xatmiya ak katmiya ñaari maqaama yooyu ñoo daje ci kenn xatmiyatu bi ak katmiyatu bi moom la junj ba mu ne xadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin lillahi taala min aadama ila nafxi fi sama ñaari ndëgg yi teg naa ko ci doqal képp kuy waliyu yàlla bañ bindee aadama ba kere bu te di woon Chérif Mahamadul Xaali ne ko waaw sang bi dangaa màndeem dangaa ne ci fanaaw Cheikhana Tijaani ne ko maa ngi ci baqaaw maa ngi ci dayoog wuri mu ne ko ndax nu ñuy def ak Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ma la jiitu woon te waxoon ne sama benn ndëggu bi teg naa ko ci baatu képp kuy waliyu yàlla cheikh na ahmad tidiane ne ko cheikh abdul qadir wax na dëgg waaye waa jamonoom la doon wax te benn ndëggoom la waxoon waaye man cheikh ahmad tidiane radiallahu anhu dama ne sama ñaari ndëggu yi teg naa ko ci baatu képp kuy wali yow yàlla dippi bañ bindee aadama ba kera bu tega di wol kuy wali yow yàlla rek sama ñaari ndëggu yi teg naa ko ci sa ñaari ndëgg yooyu nag benn bi mooy xatmiyatu benn bi mooy katmiyatu mu ne ko waaw sang bi naka la ñuy def bu geneen góoru yàlla ñëwee sa gannaaw wax lu mel ni li nga wax cheikhana ahmad tijaani ne ko muhammadul xaali xamal ne benn góoru yàlla sañu ta taxaw wax comme lii ma wax sama gannaaw mu ne ko waaw sang bi ndax yaataloo ndax xataloo lu yaatu ama xajarta waasian ama xajarta alallahi waasian ndax yàlla mantoona tànn beneen waliyu sa gannaaw may ko lu ëpp lim la may mu wax lu ëpp li nga wax mu ne ko axa kay yàlla mën na ko te mën na lu ko mu ne ko nag mu ne ko nag dëgg la kay yàlla mën na loolu mu ne ko waaye ma laajaat la yow ndax yàlla mantoon a tànn beneen yonentu gannaaw sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam may ko lu raw li may yonentu yàlla muhammad cheikhana ahmad tidiane laaj loolu saydi muhammadul xaali mu ne ko axakay ah, yàlla man naa tànn beneen yonent gannaaw yonent yàlla muhammad may ko lu raw li mu may yonent bi loolu koy lu man a nekk la cheikh ne ko waaw lu tax yàlla defu ko mu ne ko da koo programme wul ca ësël mu ne ko tontu nga ma manitam lii yàlla programme wu ko ca ësël ni yonent yàlla muhammad mel ci biir yonentu yi noonu laa mel man Cheikh Ahmad Tidiane ci biir wali yàlla yi ana sayidul awliyaa yi kama kaana sallallahu alayhi wa man Cheikh maay sangu képp aw waliyu yàlla ni sama maam doone sangu képp kuy yonentub yàlla fala yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min ladun aadama ila nafxi fi benn waliyu yàlla du naan leer mbaa mu nàndal ko keneen te leer gi bàyyi koowul ci sama géej gi man Cheikhu Tidiane dippi bañ bindee aadama ba kere buuf tega di wol kooku mooy Cheikhu Tidiane radiyallahu taala anhu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih mughliqa wal khatimi liman sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala